gis ngeen ne j'étais presque dans l'organisation donc li ma gën a doon day mooy su ma ñëwee ma jouer rôle organisateur mais pas toog fii ci place officielle yi am na ñoo xam ñoo ma si gën a yell donc maa ngi leen di remercier bu baax ñi ñëw yëpp si bés bi tey man la ñu ñëwal donc lu fi waay wax lu baax man la ko waxal lu fi waay def ci lu baax aussi man la ko defal parce que ndax ak man kenn lañu du ñu ñaar

di ko ñaanal tamit sunu borom bàyyi leen fi yàggal leen defal leen si njaboot gi lépp loo xamante ni moom lañu bëgg di euh, nuyu bu baax aussi euh, monsieur le conseiller du président de la république Mamadou Sy Tounkara qui est un frère pour moi gëj nañu gisee nag bi ma duggee politique sax dégg naa benn chroniqueur bu toog ci benn télé ne Pape Djibril nañu wax relation ak Mamadou Sy mais moo ngi nii ba ma gëjee 2STV bi lañu mujjee pour mu gëjee des stv yi dañu mujjee gisee tey la ñuy doog a gisee pour wax la réew mi ni mu yàqoo donc moo tax chuchotement c'est important dans ce contexte parce que ñi xam monde du cinéma xam nañu ne ñi xam chuchotement comme murmure dans le monde du théâtre je parle sous le contrôle de Joséphine on vous tend plus l'oreille quand vous chuchotez on vous écoute plus quand vous chuchotez quand vous murmurer. Et dans un monde où les gens vocifèrent, où les gens ont des propos définitifs, où tout le monde a décidé de hurler avec les loups, je pense qu'il est important à un moment donné de siffler la fête de la récréation et on ne peut pas faire mieux que de chuchoter, de murmurer. Donc félicitations des donc di gërëm bu baax kilifa yi nga yëpp ñëw nañu fi kilifa yi euh, euh, di féliciter bu aussi sur mon jeune frère Midi Madame Ndiaye donc euh, on a cheminé ensemble à l'université quand j'ai été président de l'amicale des étudiants du CESTI bi may dem moom le flambeau et je ne suis pas surpris de le voir aujourd'hui à ce niveau de responsabilité c'est un homme altruiste généreux c'est quelqu'un qui a aussi le sens des responsabilités euh, di di aussi la maison d'édition di gërëm le professeur euh, di Nina Penda Faye bi aussi Demna, na Josephine, di aussi euh, nekkoon sama collègue aussi <laughs> euh, au groupe Futur Média nekk aussi une mastodonte dans le monde du cinéma di gërëm kilifa yi nga xamante ni kenn ku ci nekk mënoon naa remercier la pour déplacement bi nga xamante ni def di wax rek ndey laaj mënuma wax si moom parce que xaw ma ban côté laay waxe si moom mais li nga xamante ni mën naa ko témoigner mooy euh, nit ku baax la nit ku am yërmande la nit ku mën na ñeewant nit la nit ku am conviction la tamit ku am conviction la nit la koo xamante ni aussi bu d'accordul ak yow di xam ne d'accordul ak yow man à chaque fois que d'accordul ak man dina ma wax avec bien sûr beaucoup de de décence beaucoup de dina ko rafetal ba mu rafet yenn say sax bu d'accordul ak man ni ma koy xamé moy moy elle ne m'adresse plus la parole su ma su noppee yàgg waxut ak man rek xamna né amna luma def lo xamanteni ni ci ak man su ma su nak bañu am moment bi bu ñu expliqué woo man ak mom après dinañu retrouver wu souvent nous harmoniser souvent on constate nos désaccords et on avance c'est ça la vie donc en tout cas je ngi koy ñaanal une belle carrière di ñaan surtout suñu borom sàmm ko parce que des fois damay damay toog ma suis suivre mais je suis ni ku feebar souvent parce que dama que au Sénégal bii ñu nekk soo fi nekkee nekk xale am ambition bonjour les problèmes am na jeunes yoo xamante ni sax léegi bëgguñu seen moromu jeune am ambition am na mag yoo xamante ni aussi boo amee ambition amuñu benn générosité pour tàllal la seen loxo pour yëkkati la nga dem Sénégal boobu la ñu nekk fu fekk ndaw buy def jàmm wala ñu bëgg la jàmm ay moromu ndaw ndaw ñi ñooy dégg braqué wu contre lui loolu mooy dëgg moi j'en suis une illustration parfaite mais bu mu leen teree am ambition c'est ça que je demande aux jeunes ayez de l'ambition ça bu ngeen gisee ndaw jóg aussi tey jii am na ci ñoo xamante ni liñ ko doon digal mooy non bu fi nekk di créer Agora TV demal déposer CV fenn ñu dugal na fenn loolu lañ lay wax su fekkee ne da nga jóg di politique bëgg a xàll sa yoon bopp ñu ne la non doo dem ànd ak Samba wala ma dem ba nga dem nekk booyam mais pourquoi ngeen bëgg ñu continuer ak vitam éternam di nekk booy gars yi c'est pas possible donc maa ngi lay encourager euh, ci chemin boobu nga nekk de l'entrepreneuriat il faut y croire il faut se battre à chaque fois nga jóg nag am. ambition bu rëy di nga daje ak boo xamante ni wala mille personnes yoo xamante ni dañ lay wax ne la li nga bëgg mënul nekk mille personnes koo ci daje danaan la li nga bëgg mënul nekk kooku xañ na la li ngay wut am na ci koo xamante ni aussi daf la koy yombalal danaan la ah yow de c'est à ta portée kooku tamit xañ na la ko Cheikh Ahmadou Bamba ne man karaxal baaba wala ca wala ci nee na booy fëgg bunt bañ a bàyyi fëgg bu yàggee nga

bon prochain votre prochain et beneen bi nga xamante ni moom laa digal aussi c'est l'autorité parentale dafa am benn civilisation bu bees bu même mel ni dafa fëgg buntu ci suñu réew civilisation boobu vous nee na bu kenn jox cër sa waajur civilisation bi la Nena, nee na bu kenn respecté benn kilifa gis ngeen démb ce qui s'est passé Qu'est-ce qui ak passé? Cher Niass tout le monde l'a vu on l'a vu, quelqu'un qui pose un acte avant de réfléchir, ne peut tout l'homme faut faire le il faut dire non nous, ñun dañu taxaw pour dire non donc chichote m'a dit Nous am aussi on chichote. les serviteurs aussi chichot. on a décidé de chichoter, de murmurer pour que nous gagnions ñu gagnions xel gën

Et je voudrais, très sincèrement, euh, du fond de mon cœur, nous tâtons quelqu'un qui est l'un des plus grands journalistes de ce pays, l'une des plus belles plumes de ce pays, qui m'a mis personnellement le pied à l'étrier. nga xamante il bi may commencé à bs parce que j'ai réussi le concours du CESTI yàlla suñu borom dimbali ma demaguma sax CESTI qui même année bi ma à BES et j'ai rencontré une âme très généreuse Moui Mamadou Tidiane Ndiaye MTN bi ñu wax il n'a il n'a aucun secret il n'a aucun secret pour le journalisme aucun c'est-à-dire que ni mu xamee journalisme ak ni mu xamee bind ak ni mu bind ak facilité d'écriture machallah allah foo ko takk weesu nag doxal ko dafa taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne mbooloo mu ngeen fekk ñu nekk wala ñu ànd ke leen ci liggéeyal mooy seen sang te xoolal booba ba tey mooy ranger saisi je suis impressionné par ce, ce monsieur. te pourtant su ma nekkoon day ñëw toog fii ne mooy def note de lecture ku mën a bind la c' est des meilleurs journalistes la wax te waxatuma mu ngi nii taxaw moom ba pare am une dimension spirituelle incroyable nekk taalibe Maulana Cheikh Ibrahima Niass bu bu kawe wa donc nag dafa chance pour parce que l'une des les meilleures plumes sont dans la salle félicitations féliciter encore mon remercier vrai Fallène courageuse euh, pugnace euh, une plume keroog dernier texte du modèle def pas papa pour ko et ça pas convaincre <laughs> Mon ngi nii toog bi mu dugg comment tu as fait pour décrocher Dieu m'a dit mais euh, Dal aussi mérite tous les honneurs encore une fois euh, je voudrais remercier tout le monde euh, di leen gërëm bu baax di leen sant way jur yi déplacé wu Saint-Louis daara Jolof ak fépp dafay témoigner aussi de la générosité d'âme de Fallou Mbacké papaay euh, ndaag parce que fépp fu mu jaar rek bàyyi na fa way wu a boo xamante ni tax na ñooñu déplacé wu aujourd'hui ñëw fekk si ko bi leen wooyee te wóor na ma ne euh, su woowoon ay ñi mu xam yëpp pour ñu ñëw fii euh, man ma woo ñi ma xam yëpp pour ñu ñëw ñeneen ñëpp ku ne woo ki nga xam kon du ñu xaj fii kon du ñu xaj fii donc euh, man bés bi dafa dafa ma tëddiiroon ak cœur normalement tey jii war ma fi woon fekk mais dama ne ko ñëw fii farata la fekke bés bi farata ndax koo xamul ni mu lay def koo xamul noo koy def ni mu la def moo tax ki bàyyi lépp ngir yow tamit war ngaa dese tuuti pour sagal donc ndax kenn ku spécial la ci man may ñaan yàlla sàmm ko di ko wax ne ko jàngal gënal a jàng gënal a yokk sa xam-xam bul arrêté mukk waaw jàppal ne livre bii nga def benn benn benn tàmbali wala da ngay soog a tàmbali sax mais tàmbalee ko donc euh, gën jege ñi nga xamante ni borom xam-xam lañ ñu gis naa ci ñu bari ci salle ñu gën la encadré gën la taxaw gën la wan yoon. donc xamal ne li nga bind ni livre bi c'est pas euh, une fin en soi c'est pas aussi une finalité donc yoon bi day doog a tàmbali dina métti dina dina jafe euh, di nga dajeeg ñoo xam ne dinañ la bëgg a nax di nga dajeeg ñoo xamante ni dinañ la bëgg a fooye di nga dajeeg ñoo xamante ni dinañ la bëgg a utiliser ci sa faiblesse peut-être mooy bëgg xam-xam ak yu mel noonu ci lañ lay bëgg a jaar mais il faut dire non il faut résister yenn saa yi sax mu ne ma Euh, maa ngi tel place ma ne ko defal nangam defal nangam ba yaakaar naa ba ki def moo ci mujj waaw wala jaaral fii bul jaar fii wala waxal kii bul wax kii yenn saa yi mu ne ma telle personnalité wala telle personne moom laa amal rendez-vous ma ne ko defal lii bul def lii wala ma ne ko sax yenn saa bul dem waaw wala ma ne ko bul jouer à domicile bul jouer aussi à l'extérieur jouer ci terrain neutre waaw donc loolu yëpp aussi yéene bu ñu am ci moom la suñu borom donc j'ai été long te monde, jël dama ñëw rek ñu logistique comme Mohamed Tidiane encore une fois Tidiane je ngi ñaan MTN euh, journaliste à la presse brillant presque Sénégal yëpp la def euh, ak Sira remercie remercier aussi moom tam ci générosité euh, aussi Khadija Khadija tamit ak mbokku Ndar yëpp maa ngi leen di gërëm bu baax di